mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu ni ngeen àndee ak rajo Futur Media jaajëf Yacine Pouy eh, ci digital bi Abdou Thiam ci eh, machine bi gërëm nuyu également oustaz Ndiaga Seck mi woon ci ci ci ci ci umra bi borom xam voyage nekkoon ci organisation umra bi ñëwaat na ci jàmm ak salaam du Sénégal namoon ko waaye fa mu nekkoon it soxla woon nañu ko fa eh, oustaz Ndiaga Seck ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax. gërëm mm, mboolem kuy teewlu euh, émission xalaas gërëm mboolem ñi ànd ak programme bu rajo Futur Média waaye na gërëm bu baax a baax sama waa ji may àndal ci xalaas mu di passe partout passe maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo Ndiaye di la ziar di nuy mbokk auditeur yi di nuyu internet ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm. jërëjëf euh, nuyu sama waa moom it Ababacar Aba. Mm-hmm. Aba diko ko nuyu di ñaanal jamm diko diko di ko ñaanal wér bala ñuy sori ñu remercier partenaires yi nga xamantene ji ñoy and ak ñun ci émission bi di xalaas ci partenaire yoy Optic Vision Plus Sénégal ci la bok borom mhm. lunette partout et pour tous Optic Vision Plus Sénégal euh, ñew kon bi mu yegsee ba légui ci la nit ñi taggo ak ciona ci ay lunettes fu ñuy jëlee lunettes yu baax fu ñuy amee lunettes yu garantie fu ñuy amee lunettes yu yomb fan la ñu mën a amee ay lunettes loolu Optique Vision Plus Sénégal ñoo ko fi jëlee ñu ànd également ak beneen partenaire ci xalaas moo di eh, établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom gam bu yéeme bi te complet gam boo xam ne frotté mi ngi ci ñu naan ko frotté vite fait mm. insecticide bu efficace ay ci yoo weñ ak mbóot di eh, tudd vite fait cuuraayu bant vite fait ñëpp xam nañu ko nous indi également vaseline vite fait il y a ci période sedd bi tamit dañu lu nit ñi di soxla rek mu mën fekk ci euh, crème crème pied vite fait amna crème épilatoire marque vite fait savon bu doy bou efficace bou yéemee di savon king aloe vera wala anti acné lo lepp ci gamme la gamme bi fofu marché bu ngeen dem bu ngeen laajte gaamu vite fait wala produit bu ngeen soxla ci gamme amna ci marché yi bu le nexé tamit man ngeen a woote ci 77 555 11 11 établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère bijouterie bu mag bi di bijouterie la Roton di partenaire ci Khalas. Euh, di Santé Dylan di leen gërëm bu baax di wax sénégalais yi bijouterie La rotonne rue Amadou Assane fa la ñu nekk ci immeuble La rotonne ci rez-de-chaussée bi mën ngeen 77 348 96 96 70 639 60 60 wala ci 33 842 65 95 ay bijoux de qualité bijou garantie 18 carats 21 carats ba ci 24 carats bu ngeen demee bijouterie La Rotonde sen xol dina sedd jamono ji nak dina indi ay arrivage bu bes tax arrivage bu bu bu bu yéeme bu doy war ngir rek nak bëgg jigéen ñi gëna a ci euh, mois de mars bi ñu nekk di mois de la femme mm-hmm. gërëm leen bu baax ñom partenaires yi delu gërëmaat auditeurs yi fasiyene yéene soobu ak ñom nak ci xalaas yi mu numéro bi mujj ci ci semaine bi. def ñay fu ñuy Ndiaye kii mi ngi tudd Mamadou Mbaye mhm. ñu koy wax docteur mhm. mi ngi am dix-neuf ans mhm. dafa réer ay mbokkam depuis samedi boori 17 heures ca Yoff ñee nag dafa liggéeyoon ba wàcc boobu ba léegi gisuñu ko waaw Mamadou Mbaye ñu koy wax docteur âgé de dix-neuf ans waaw ku ci am daal euh, xibaar mën nga ñu woo ci 77 150 17 di doom ci Nancy Nancy Ndiaye waaw Pikine Rue 10 la dëkk euh, képp koo xamante ne ji gis nga ko mën nga mën nga mën nga woote bon joxe nañ numéro yaay ji ak numéro mm. papa ji mais xam nga gars yi dañoo njublan mm. mais li gën daal mooy nañu woote ci 77 157 17 wala ci 33 849 ñu laajte passe partout dimbali ñu ci Mamadou Mbaye ñu gën koo xam ci docteur 19 ans la am ni nga ko mm. waxee samedi ay boori 17 heures la réer ca Yoff dafa liggéey woon wàcc boobu lañ ko gëj a gis mm-hmm. ñu doxal Ndiaye mm-hmm. Ndiaye dimbalam balaa ñuy sori mm-hmm. euh, dama bëgg nga xool vidéo bi gis nga vidéo boobu ñu ngi koy partagé fan yii yëpp. waaw vidéo bi nit ñi ngi bëgg xam lu ci xew. waaw boole ci benn audio. benn xale bu jigéen la bu ay waxambaane jàpp. waaw di ko dóor. waaw mais njaay boo xoolee environnement bi rek di nga xam ne lii du Sénégal. <laughs> déedéet ku ku sañ wax Sénégal. ak seeni armes yu ñu yor ñu yor ay fetal yaa ngi gis. waaw ba dañ ne Sénégal la. dafa am benn femme bu yox ci audio bi. Mhm. boo une la.

waaye léegi moom Aminata Diop mii. Fatou Seck Diop am na information ne xale bi dañ ko may mariage forcé xam na ni dafa sëyi woon xam na ni dafa jógee kër jëkkam dem jël ay kayam pour jàngi xam na ni kii koy dóor papam la. parce que moom xool na ni lu mat cinq góor ñu koy dóor mais mën na identifier papay xale bi. moom xamul fan la Sénégal moom. <laughs> nee na ndaw si nu mu tudd ki wax loolu. nee na moom mi ngi tudd Fatou Seck Diop ba pare ne doomu Aminata Diop Diarra sant. Diop wax ji tëju na. même même bu doon Sénégal même c'est-à-dire même bu doon Sénégal sax vidéo bi rafetul ñu koy partagé. ma ne boo xoolee xam ne lii du Sénégal. daf maa wax lu am solo ci la dëkk sax macha allah. Hmm. mu ne ma am na yoo xamante ne ji naam du yoon naam xalaas la naam soxla na nit ñi di ko dégg mais di ko jàllale ci rajo bi mooy def promotion. mooy comme xeet yi rek. loolu tam dëgg la leen bàyyi seen vidéo foofu rek. ñu daw dem Turquie Ndiaye. Turquie waaw benn. waaw fi amoon tremblement dafa am suñu ñeenti mbokk sénégalais. yoo xam ne fi tremblement amee woon fu ñoom fa leen fekk. mais nag yàlla muccal na leen ba génn nañ ci affaire yi. dem ca ambassade ba. ah mooy ñu ngi fi doon wax. waaw te ambassade bi ne leen faaw ñu sàkk pexe ndax mëntuñu faa nekk. voilà ba ñu eggee nag ambassadeur bi teeru na leen ci condition yu rafet yu baax jox na leen xaalis pour ñu jën ay yére aussi parce que seen lépp yàqu na. amatuñ fu ñu jëm. Mm-hmm. mais dañoo toog quelque temps na mun leen état bi waxul ci jëm ci ñoom dara foog ñu jël seen responsabilité ñoom ñu dem wutal ñu nekk ak seen jàng ak seen yooyu. génnee leen waaw. appel la ñuy lancé nag jëmale ko ci nguur gi. génn nañ ni génn ku ñu. ak ah, déet te foofu sedd na sedd boo xamante ni boo génnee amoo foo jëm. mais foofu sax lañ war a toog nag. mooy yoon. loolu la représentation diplomatique cim réew. waaw maanaam fa mu nekk réew ma la fay représenté. ma ngoog maanaam Sénégal ci ki jamono jii. Mhm. mooy ambassade. ambassade mooy Sénégal ma ngoog. léegi bu leen génnee fu ñu jëm. moo jaaxal ñëpp. ana déglu. bi affaire le 6 le matin donc avec euh, la peur terreur beeg yow nag nañ ba ba jógee fi nga xam ne suñu ville donc on a fait pratiquement deux jours de route déjà pour génn suñu koñ ba dem ba ci autogare bi c'était tout à fait compliqué après vers 20h, on a on a évacué le quartier fexe nañ tamit ba dem ci autogare bi on est resté là-bas donc fanaan nañ fa tamit parce que amoon ay bus tamit yu ñu bëggoon yu ñu mënoon yobu ba ci capitale parce que tout le monde voulait se diriger vers la capitale ou dans d'autres villes yoo c'était un peu moins chaud ñu fanaan foofu ci gare bi c'était très compliqué nag seddaay bi taw bi neige bi donc amna ñu bëri ñu yoo xamni sax feebar nañ ci ba légui ni mais man mi ni wax ak yow sax dama ci feebar ba légui pneu yi lañ doon taal fofu pour mëna noy c'était très horrible yalla def na nag ba ñu génn fofu non génn nañ fofu moyens yu ñu mënon nak fexé nañ ba génn fofu ñëw ci ambassade bi ñun 4 sénégalais yi presque ben jour d'intervalle lañ jiitloo ba yegg si fii ci ambassade bi donc ambassadeur bi nak il nous a très bien reçu alhamdulilah teg nañu dans de très bonnes conditions donc euh, xam jox nañu xaalis pour ñu mën a jënd ay quelques yére rek loolu juste le strict nécessaire pour mën changer wu reprendre ay force tamit restaurer wu nekkaat ci jàmm tuuti deux semaines yi bi mu jàllee ça fait deux semaines pratiquement ou même plus boo xoolee parce que entre le 6 février ba tey plus de deux semaines donc nag dafa ñëw on a fait une réunion il nous a fait savoir que nag jamono ji état bi joxu ko directive recevoir benn nouvelle de l'état ni rien du tout nous concernant que donc on va devoir se prendre en charge ñun suñu jëmu bopp ñoo war dem xool naka lañuy def ban ville lañuy dem ban euh, école lañuy ñuy jàngee ak loolu noonu yëpp que ñoom leen daal mooy li nga xam ne ñoom mën nañ ci impliquer seen loxo muy démarche administrative au niveau de la Turquie fii nii donc lépp loo xam ne mooy démarche administrative su soxlawee ñu yónnee ay mail ci école bi ñu yónnee bu soxlawee ñu woote foofu noonu ils vont le faire et tout ça mais ils ont pas reçu de fonds ils ont pas reçu de directive venant de l'État comme ni ko ñëpp xamee état bi joxe na ay dons pour état turpon bonne volonté yi tamit def nañu li nga xam mo mo moo sen sen dole def nañ ko pour état turc quatre sénégalais yi nga ils ont été sinistrés par le tremblement de terre bi nga xam mo amone fi fii man personnellement j'ai absolument tout perdu fi ma d'accord le bâtiment complètement euh, gâté yalla bi ma tiim mom mo xam naka la naka la def ba génnee ma ci histoire bobu non fi ñu nekkoon j'ai perdu pratiquement la majeure partie des amis yi nga xamni ñoo doon nekkandoo tous les jours di ndo di ndo lepp donc ba tay ji may wax ak yow état bi officiellement waxul ak ñun ba pare nag léegi la cerise sur le c'est dem leen ngeen lijjantil seen bopp naka ngeen di def ba reprendre seen cours yi naka ngeen di def ba wutaat appartement ak la noonu yëpp ñun nag li ñu buggoon ma ku ñu jàppale rek pour ñu mën a xamal état bi que ñun ñu ngi ci ambassade am bi nekk fii ni biir Turquie parce que apparemment su fekkee ambassadeur bi jël na ay disposition ba jàllale message bi par les message bi war na jàll ba ci ki nga xam ne moom mooy président bi. mi bi moom. Mhm. état bu Sénégal yëgu ko. Mhm. parce que xam nga diplomatie nag moom. Euh, ñoo gën a gaaw ci rendre compte. Mhm. ñoo gën a gaaw ci rendre compte. cest mhm. du ñu jël décision bu ñu leen santul. Mhm. du ñu def déclaration bu ñu leen santul. te fa ñu leen teg également dara du fa xewul luy soxal réew mi. te duñ ko yëgal njiitu bien sûr. léegi nag nañ leen dimbale. parce que fi mu nekk nii moom ndekam doomi turki yi ca turki ñoo sonn ñoo joomi jamono ji. rawatina ay doxandéem yoo xam ne dañ faa demoon di jàngi. d'autant plus que bariwuñu aussi. waaw du déjà ñeent lañu. ñeent moom war nañoo mën a yombali jënti nag. Hmm. nañ leen dimbale ba situation bi xaw a tane. Hmm. fu ñu jëm feneen. Ndiaye dañuy daw dem Tamba. Tamba gi confidence la waaw. rapidement balaa temps bi duñu xoj. Hmm. Euh, ndaw si dafa am lu mu dund ci diggante ñaari hôpital. ca Tamba diggante bi mu bi muy sentir matu. bay dem ci hôpital bu ñuy wax CM. la mu fa dund ba bi mu fay accoucher ba jóge fa. dem hôpital régional bu Tamba ba ni muy ba ni doom ji di ñàkkee ba kanam. doom ji daa faatu. faatu na waaw. Hmm? léegi nag dañ koy étaler rek déglu ak Pape Ousseynou. ah ñu déglu ñu dem. vendredi bi ñu xëy dem hôpital régional hmm. pédiatrie. ku leen wax ngeen dem hôpital régional ñoom. déedéet kenn waxuñu. Hmm. parce que dañoo dem CM. li ñu wax ñi kii ñuy jaaxle léegi ñu ne leen. def euh, le dix huit euh, février samedi. vers seize heures. ma dem CM. sama doom bi mu ne biir bi day métti. ma ne ko nañ dem xëy na mat la. yàlla defee bi ñuy demee. ma dem léegi ma wax ko saa sama ma ne ko fii ah, biir bi day métti. mu ne ma demal jënd ticket. mu xool ko léegi bu mu ko xoolee bi ma ñëwee kooku nee na a ah, mat la dem mais des na. mais dem leen kër ga. boo leen yooyu si diggante bi jaru ngeen di jënd ticket ma ko d'accord fekk man ak moom ak sama borom kër ñi dellu kër ga bi ñëwee yëf di gën a métti di gën a métti di gën a métti ma ko mu ñëw ñi fekk beneen sage-femme foofu ñu nuyoo ñuy taxaw ma ko ah kiire biir bi day métti mu ne ma demal nga jënd ticket ma ko ah sànq lañ fi jógee parce que fi fekk woon kooku dafa ne bu ñu ñëwee jaru ñi jënd ticket mu ne ma waaw kooku équipe boobu dem na waaw beneen équipe moo fi ma wax loolu rek laa la mën a expliquer mais dama jënd ticket ma ko amul problème si laa dem si gise bi ma dem jënd ticket bi ma demee waa ji xool mu ne kan la ma ko Mariama Goudiaby mhm. ma ah, bi de ma a jaay la si la ma jaay ma dem ma demee taxaw lu yàgg si porte bi maa ngi dégg ngi wax ak sama doom bi affaire bi la jël sës ko biir bi comme genre micro la dañ koy teg seen nopp teg ko si kaw biiru femme enceinte bi pour ñu xam ndax bébé bi kër bi mu ngi battre la lan léegi xam naa nu mu ko tegee noonu maa ngi dégg sama doom bi dinaan defal ndànk yaa may gaañ mu naan ma defal ni nii rek ñoom ñaata la ñu woon. déedéet moom kese moo nekkoon ci biir foofu mais moom dafa am ñeneen ñu mu àndal woon si biir foofu. mais façon principal bi si boppam kii euh, consulté sama doom d' abord moom laa lay expliqué léegi sama doom bi a dalal. ma bi ma dugg jox ko ticket bi mu ne ma ana analyse yi ma génne analyse yi écho yëpp ma jox ko mu ne ma mat la yow génneel ci biti léegi mu ne sama doom bi na dem toog fële yàlla def sama doom bi dugg si biir dem toog am na ñeneen femmes yi ñëw ñi ànd ak seen ñi ñi ko ñi leen di gunge léegi sama doom bi mu wax jigéen bi mu ne wool ma sama yaay laajteel ma kon moo tudd si Keita yàlla def mu woo mu ne ma xanaa ñii gisoo ñii accompagner seen ñii doo tamit doo ñëw toog sama wet man ah jigéen bi de moo ne di ko masalu di ko masalu ma ne ko muñal léegi mu jeex ko soxna si ma ne ko kii métti bi toog ba ba mu neex ko ma génnal ci biti moom daal moo génnal ci biti bi daal moo nekk si gémmiñam fi laa génn ci biti sama doom bi yéeg ba mu yéegee si taabal bi xool na ko mais après bu mu ko xoolee sama doom bi à la suite daf ma woowaat ma ñëw mu ne ma ah, ah xool na ma de mais am na lu bëri lu mu génne dafa loxom bu mu fees dafa xëcc rek ubbi kii seen poubelle bi rek mu dugal ko foofu ma ne ko ah mu ne ma waa mu ne ko lan mu ne ma nee na des na naa doxantu ma ne ko waa léegi doxantu ma ne ko mu ñëw léegi mu jeex léegi sama doom nu muy doxantu noonu moom mu def loxo bi si biir sërëm bi ni loxo bi fees ak deret ak leneen ak kii ma ne ko waa lii lan la mu ne ma gis nga ne lii de moo génn doo woo sage-femme ma ne ko soxna si doo xool ma lii naka mun nga bëgg ma xoolaat ko na ko ko xool même pas une minute mun nga nit ki eh, changement am bu dem toog fu mu toog man ma toog sama doom bi ma ne ko mu ma ma ne ko man de moo génnal ci biti bi moom niis naa léegi sama doom bi na mu ngi nekk foofu si biir di raam taxaw naa si fenêtre bi gisuma ko ndekete da doon raam tànk bi yëpp dafa dee dem na si sage-femme bi soxna si dooma di dimbale ngir yàlla sonn naa mu ne ko sama bureau danga sama bureau du nga ne fii sa taaw la mais boo yéegee taabal bi di nga xam lépp dëgg la sama doom bi raamaat demaat si beneen bureau bi dem mhm. fekkaat beneen kii foofu xaw ma ñoom ay assistance la xaw ma ay lan wax ko soxna si ñëw leen dimbale ma wi lay war a suuri fu ma toll ni sonn naa fekk sérum bi yëpp dafa yàqu kooku tamit dama woo keneen si lañu ñëw nee moom mu ne bu muy dox noonu dafa yaakaar doom ji day wadd pour mu yéeg si kaw taabal bi sax problème la mhm. bu mu yéegee si kaw taabal bi dañu ne ko yow sa doom baa ngi ni dafa pousse trois di jooyu ñu teg ko si mbàggam bi am na leneen lu ñuy jël luqat bakkanu xale bi hmm. di luqat bakkan xale bi di luqat yooyu yëpp yaa ngi koy gis yaa ngi ko fekkee. moom bi après bi ma duggee pour dem yóbbu morso bi si sama doom bi. mu ne waa kii yaram bi nu mu taqee nii. mu ne ma mu bi ak gémmiñ mhm. mhm. ma ma ne ko ah comme que yàlla muccal mhm. ne ko bi ma demee ma xool yaramu bébé bi. dañ ko nettoyé man maa jël morso. nettoyé bët bi. nettoyé bi ak kii bi yëpp. fekk affaire bi yëpp woow si yaram bi. ma jëlaat beneen morso. ma ne ko pourtant ñii jox naa leen morso bu doy de ma jëlaat am beneen morceau encore mhm. defaraat dugub bi ma tere ko fu mu nekk ma ko tere fu mu nekk après si laa génn ñu ne ma demal wutal ko lu mu lekk yàlla def ñi xëy dimanche de 19 beneen médecin ñëw sage-femme ñëw pour di consulter bu mu consulter ñëw na mu ne nañ tooyal morso nañ ko def si yaramu bébé bi mu ne parce que yaram bi dafa tàng ma ne ko ah mu ne ma waaw hmm. mu ne bindal nañ ko ordonnance mu ngi nii boo leen eggee kër gi ngeen jox ko fièvre la mais day wàcc yàlla def ñu ñëw kër gi dimanche xale bi mu ngi namp mais lundi nampam bi dafa des dañ koy forcer bi ko jox mu namp ma ne ko mbaa kii nekkul bébé yi nga xam ne dañuy bàyyi ba dañuy bañ ween ma ne ko mais forcer ko rek hmm. bu ko joxee mu xëcc xale bi bàyyi ween bi jooy ma ne ko ah comme bambara lu ñuy wax ma a ko mhm. xam naa loolu la ma ne ko mais barama yelema dafa teel si kii sax barama yelema barama yelema xam nga xale bi jumbax bi bu daanu waaw am naa lu muy bouger ci biir jumbax bi muy daanu mhm. bu daan si biir day def effet léegi ana bébé bi moom bébé bi dafa gaañu kañ la gaañu samedi fan la gaañu hôpital régional hôpital régional waaw léegi yàlla bu mu defee bi ñu ñëwee eh, lundi ba mardi bi ñu delluwaat CM encore mm-hmm. Mm-hmm. ñu delloo foofu CM ñu dem fekk beneen sage-femme ñu ne ko ah xale bi de nangul kii day jooy rek xamuñu la sa biir doom bi xoolal nu mu wàccee kii nampal ko kii dafa xiif ma ne ko pourtant ñoo ngi koy jox de muy namp de mu ne est-ce que ma ne ko waa mu ngi dem ko si gémmiñ bi pour mu namp mu ne demal gi nga nampal sa doom noonu la ñu ñëwee mardi bi jox ko ween bi xale bi di nangu namp tuuti mu bàyyi tuuti lay xëcc mu bàyyi mercredi ma ne kii ma dem wutal ko biberon ci laa dem pharmacie dem jëndal ko biberon sept mille cinq cent bu ma ñëwee jox ko biberon bi bi bu xëccee tuuti mu bàyyi hmm. bu xëccee tuuti rek mu bàyyi rek jooy ma ne ko eh man de xaw ma lii lan la bu ay xaaju guddi bi mu yaram bi tànge na laa jëlal si bi encore jox ko bi ma ko hmm. joxee sirop bi après à la ma teg ko sama mbagg tuuti rek mu commencé wëccu mu wëccu affaire wu ritax lu hmm. gudd di génn ma ne ko waa lii si laa manque gémmiñ bi xëcc affaire bu ritax bi tufli ko bi ma ko tufalee après guddi googu yëpp ñu nelaw ñu yaay ji mu ne de man de sama doom bi moom mu ngi jeex ma ne ko waa xam naa nu mu nampul la mais dañ ko forcé jox ko xëccee wen bi day bàyyi wen bi mu jóg vendredi bi ñi xëy dem hôpital régional pédiatrie. ku leen wax ngeen dem hôpital régional ñoom. déedéet kenn waxuñu. Mhm. parce que dañoo dem CM. li ñu wax ñi kii ñuy jaaxle léegi ñu ne léegi nañ ko yóbbu pédiatre ñun mhm. ñoo ko yóbbu pédiatre man ak yaay ji ak sama borom kër. Mhm. ñu dem pédiatre hôpital régional ñi dugg. bi ñu duggee ñu xool ko ñu ne ñu kan moo takk jumbax bi ñu ne ah jumbax bi de kii de hôpital CM la accouché ñu bi dañ ko takk compresse. waaw ñu dugaat beneen infirmière bi. xool ko mu xool ko rek mu ne kii man du ma ko laal xaaral ma woo médecin bi. ki bi médecin bi ñoo xool mu ne kii dafa manqué ndox kan moo takk jumbax bi ma ne ko kii jumbax bi fële lañ ko takk CM beneen médecin bi encore aussi dugg si biir bu mu génnee la fi ñu laajtee kan moo takk jumbax bi ma ko jumbax bi CM lañ ko takk mu ne dañ ko takk ak compresse mu ne kii fu mu toll ni yaram bi amul ndox moo tax fu mu toll ni il faut ñuy perfuser ko ñi defal ko oxygène parce que cœur bi dafa faible mais nañ ñaan yàlla dina si dina dina mu génn si ay 15 heures mu ne ñu 15 heures mooy heure visite. parce que mm-hmm. fu ay prématuré ñoo fa nekk. moom moo am droit dem seet ko. ak mm-hmm. papa ji ma ne ko waa yaay ji moom mun na dugg dem seet. man mandat man mun naa toog quinze sama doom bi dem dugg mooy Mariama Gujaabi dem xool mu génn di jooy ma ne lu xew mu ma sama doom ji bakkan be yaram bi fu ne la ñu branché waaw ma ne ko xam nga perfusion bi boobu mooy kii bi nu mu tudd moo koy may ndox ma ne ko oxygène bi xam naa pour mu nooy la ma ko bu soob yàlla dina ci génn soob yàlla ma ne ko mu ñël léegi ba guddi mu war a dem xool dix-huit heures ni na ko mu dem jënd ñaari couche mu ñëw dem na jënd ñaari couche hmm. après jox leen à 15 heures pour ñu woo yaay ji mu dem xool bébé bi dëkk bébé bi gaañu na depuis si suba depuis si suba la gaañu ñun ñoo ngi toog di xaar pour ñu wooñu ñu dem xool bébé bi parce que am na yeneen sage-femme yi génn ñu ñoo xool parce que dañuy woote par heure bi nga xam ne prématuré dañ leen war a nampal waaw sama doom bi mu ne ma ah ñii de woo nañ ay ñii man de woowuñu ma ma ne ko waay yow sa bos ak ñii seen bos bokkul ma ne ko léegi solo sa comme que heure visite jot na nga dem sama doom di dem mu ne ko bébé Mariama Goudiaby laay seet mu ne ko bébé Mariama Goudiaby xaaral mu xool mu dem xool benn carnet bi fiis bi gisu ko léegi mu ne koo àndal mu ne sama yaay laa àndal mu ne dama woo sa yaay yàlla mu des sama doom bi mu woo ma ma ñëw mu ma a ah, da ngeen ni muñ le yàlla def na liggéey nii ak nii parce que ñun bébé bi pour ñun àndal ki mu àndal ñooñu dem nañ man bi ma monté midi laa doog a xam ne bébé bi dafa gaañu ci laa woo croix ñu ñëw jël ko yóbbu ko morgue médecin bi sax ñëw na ba defar na papier yëpp papier yëpp a ñu nii léegi yéen dañ leen di jox benn fan bu mu fanaan fii ak analyse yi mu def ngeen dem fay ticket bi ngeen ñëw ñu jox leen seen dem dem ñu dem def jënd yooyu yëpp ñu dem morgue ñu dem fekk keneen waa ji nga xam ne mu ne ñëw leen jël seen néew bi ñun de man damay tëj ma ne ko sëñ bi dimbala ñu rek loolu yëpp hôpital régional la waaw mu ne ma man 16 heures laa war a wàcc man par hasard rek fi ñëw ma ne ko ah man dama yaakaar ne morgue du wàcc mu ne ma gaaw la ngeen génn ci biti ma ne ko may ñu rek parce que yow yaa ne bi nañ ko dem photocopie pour nga ñëw rempli ko kooku mooy gardien morgue bi ku leen wax mooy gardien morgue bi ah. waaw mu ne nañ ko génnee parce que moom day tëj moom day dem loolu la nekkee ba ñu ñëw ñuy defar kii bi koor gi gardien bi ñuy naxa gars yi nekk foofu naxanteeg moom ba ñu xaar ñu photocopie d'identité bi hmm. mu ñëw rempli ko après mu jox ñu koor bi mag yi ak kii ñu dem ñu denc xale waaw denc nañ ko léegi seen yi demu leen seeti leen tey dem nañ hôpital régional dem nañ foofu gis médecin bi ma ne ko ñun de wax dëgg yàlla yëf yi bu mu jàll ba tey hmm. parce que amuñu yoon jotu ñëw man lu ñu xaw a jaaxal ci mbir mi tax ñu laajte trois fois kan moo takk jumbax bi ñoom daal waxuñu leer ñun lu ñu décidé hmm. tuddee porte plainte man ak sama doom bi tey bi ñu jógee si procureur dem nañ si procureur expliqué nañ ko lépp procureur dafa ne nañ jël certificat de décès bi ak reçu yi ak ordonnance bi yëpp nañ ko photocopie ñii indi ko def suñu plainte ñii indi ko secrétariat xalaas danga ñaay heure bi jot na mhm. dolli ci rek ne Pape Ousseynou Diallo mhm. mi doon def interview bi mhm. mi dajeek femme bi mhm. jokkoon na ak médecin chef district sanitaire bu Tamba waaw na ko li ndaw si wax mhm. médecin chef bi nee na ko liir naa ko samedi incha allah dinaa ci dinaa dinaa revenir waaw loolu la ko mujjee wax waaw hôpital bu njëkk bi tamit jokkoon na ak ak ka fa nekk tamit kooku ne ko damaa nekk ci dëj danañ ko topp ba altine incha allah. incha ñu bàyyi leen ak rédaction bi jërëjëf.